loxo ma ñëw également ci président Macky Sall ndax lu jiit njaag mooy njaag moo ñu tànn ci suñu biir moroom ñu koy sant di ko gërëm mais may waxaat fi solennellement ne liggéey bi important na important boo xam ne défi yaatu na yaatu boo xam ne kuñ ci jiital rek li nga war a njëkk bàyyi xel mooy gënoo kenn ëppoo kenn mënoo kenn sunu boroom a dogal waaye ñu ñëpp a liggéey kon maa ngi ñaan coalition Benno Bokk Yaakaar bi ñu ñëpp ñu àndandoor nekk benn mën a jëm ci liggéey bi li ci des nag mooy ñu ñëpp xam nañ ne defar liste yi métti woon na métit boobu nag mu métti fow ñi nga xam ne dañu bàyyi ñeneen ñi dugg ñu sant leen gërëm leen mais comme ni ma ko waxee rek fu kenn nekk rek mën na yóbbaale ñëpp kon tey list SICAP bii ñu am na SICAP yëpp xam ne seen liste la SICAP yëpp xam ne ñoom ñoo ko bokk rawatina bi nga xamee ne ci téeméer ak ñaar fukk collectivité yi nekk senegaal benn rek la ci ñaari jigéen jiite Sénégal ba mu daj liste yi fi ne yëpp suñu bennum list bi la ñaari jigéen jiite loolu yaakaar naa lu am solo loolu bëggoon naa ko wax balaa may ñëw nag ci délégation bi nga xam ne moo ànd ak suñu gan gi ñu mën ci ràññee la directeur de campagne le docteur Malick Diop ràññee ci honorable député Badou Diouf ràññee ci Ibrahima Fall ak Jàmme ak mbooleem ñi nga xam ne Pape Thiam gis naa ñu bari ñoo xam ne ànd nañ ci délégué ci délégation gan gi maa ngi leen di sant di leen gërëm Monsieur le ministre Ablaye Diouf Sarr, tête de liste de Benno Bok Yakar à la ville de Dakar. Dakar, la belle. Dakar, la mère. Dakar, la convoitée. Mais Dakar, la conquise. Car acquise à l'ambition que vous nourrissez pour elle. Nous réjouissons de vous accueillir cet après-midi. à l'occasion de la cérémonie d'installation officielle du comité électoral de SICAP Liberté. Cela vous a été présenté tantôt. Nous vous accueillons avec fierté et prenons l'engagement ici de contribuer à votre victoire au soir du 23 janvier 2023. Le cheminement administratif de notre pays est marqué par une politique de décentralisation prudente, progressive et irréversible. Cette décentralisation, qui se caractérise par l'existence des collectivités territoriales dotées d'une personnalité juridique et d'une autonomie administrative et financière, constitue, à côté de la déconcentration, le fer de lance du déploiement de nos politiques publiques. Ces collectivités territoriales, au regard de leur importance, se sont vues dotées de réelles compétences transférées par l'État afin qu'elles puissent impulser durablement le développement local. Il faut dire, parmi ces collectivités territoriales du Sénégal, la ville de Dakar, au regard de son statut de capitale nationale, demeure sans nul doute une des priorités majeures dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique de décentralisation. La ville de Dakar, à l'instar des villes modernes, se caractérise par l'existence d'enjeux et de défis majeurs, le plus souvent par la diversité d'organisations qui ont la plupart des cas des objectifs différents. Il faut dire que le premier enjeu du développement de la ville de Dakar est de faire de cette diversité une force capable de la tirer vers l'émergence. La prise en charge de cette diversité passera nécessairement par la conciliation entre l'intérêt général et les intérêts des particuliers. Au regard de ces importants enjeux et défis, nous estimons que la ville de Dakar doit être confiée à une équipe qualifiée, dynamique, capable de saisir les véritables enjeux du développement de nos terroirs. Cette équipe doit également être dirigée par une personne expérimentée qui connaît les rouages de notre politique de décentralisation. C'est pourquoi Monsieur le ministre Ablaye Diouf Sarr, au regard de sa riche expérience administrative et de sa profonde connaissance de notre politique de décentralisation, demeure sans doute la personne qui présente le meilleur profil. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je suis persuadée, et mais tous mes camarades ici avec moi, que vous êtes indiscutablement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. dañuy am mbégte waaye surtout liggéey lim ñaari kàddu rek ndax tey wax ji yaa ko moom engagement rek lañu am te engagement bi ñu jël mooy root rootaale la ba mu rembet bay tuuru ñoo ak yow ñoo ak yow maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi leen nuyu di la remercier parce que. lépp lu ma nekk yaa ngi si je me souviens deux mille euh, fin deux mille huit deux mille neuf say circonstances yu metti à l'intérieur du say caravane yoo xamante ne tey bu ñu koy fàttaliku dañuy wax ni on prenait des risques extraordinaires on était man maag yow si benn oto di xeex pour jël nguur gi ba tey yaa ngi fii taxaw pour jàppale son excellence le président Macky Sall ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Marème Gueye bu baax a baax ci taxawaayam en tant que sage mais aussi en tant que véritable combattant maa ngi lay jox nuyoo jigéen ñëpp nga joxal ma leen ko di wax ne tey gis naa effectivement loo xamante ne ci dix-neuf communes yi nekk fii ci Dakar c'est pas parce que je suis à Sicap que ma koy wax mais bi ngeen di lire seen liste may gis la composition di apprécier la qualité des hommes et des femmes qui la composent Zahra dama ne la vous avez bien investi maa ngi lay féliciter si loolu di remercier et di nuyu Julia Niang bu ak euh, notre amie et sœur Khadija Sy pourquoi je salue Julia parce que sa maman a fait quand même énormément de choses pour moi à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, où j'étais le secrétaire général pendant deux ans. Sa mère était membre du bureau ak Dame Ndiaye, Mamadou Lamine Nia et autres. ñu may jàppale bu baax sama liggéey bon maa ngi lay nuyu di ñaan sa wéjur yàlla na ko suñu borom yaa yóbbu sa àjjana yu gën kaay di wax ne tey dañoo ñëw juste pour une opération boo xamante ne c'est politique installer le comité électoral de SICAP danañu dem un peu partout pour installer les comités électoraux mais li ñu gis fii ci SICAP dal na xel incha allah madame la ministre et sans risque de me tromper au soir du 23 janvier 2022 vous serez maire de SICAP parce que wolof dafa wax ne cin bu nare neex bu baxee xeeñ mais cinu Sicap tey xeeñ na bon da dina neex mais qu'est-ce qu'il faut kii taxaw ak équipe bi mu àndal boo xoolee valeur yi si nekk ñoo xamante ne duñu ay nitu caaxaan ay góor ak ay jigéen yu am valeur Sicap mën nañu wax alhamdulillah danañu jël en charge seen sécurité danañu jël en charge seen cadre de vie danañu jël en charge l'emploi des jeunes danañu jël en charge les femmes dans les réseaux d'entrepreneuriat féminin mais ñu jël en charge les véritables problèmes de SICAP Zara bokk naa si ñi xamante ne mën naa wax ne am na lu bëri lu ma xam si moom lu ma xam si moom muy njëkk mooy que ne nit ku gore la et si je le dis yaakaar naa ne moom xam na lan moo tax ma koy wax 2014 j'étais effectivement candidat bu waroon na xeex pour jël la commune de Yoff amul fu ma taxaw si Yoff te moom taxaw elle n'était pas obligée de le faire loolu xam li ko war ci parti xam li ko war ci coalition xam li ko wax ci digganteem ak président Macky Sall loolu moo taxoon muy sacrifier des journées entières ñëw taxaw ci sama boor pour que ma gagne la commune de Yoff maa ngi lay remercier Zara en dehors du fait que je suis tête bu ma ko newuloon sax danaa taxaw parce que nit bu la lebalee boo dee gor bu xewlee da ngay ñëw fay ko bu ma newuloon tête nga taxaw ne da nga bëgg a sikap sama devoir mooy foo taxaw ma taxaw ci sa bor bon nag loolu premier élément la mais Zahra Iyane kenn du ko laajte ci senegal waxuma sikap de kenn du ko laajte ci Sénégal bu ngeen di jox seen dëkk jox leen ko koo xamante ne day dugg ci CV wu seen dëkk parce que dëkk boo gis rek day am un CV dañuy wax ne dëkk bi lan moo ko caractériser bu leen jox seen dëkk koo xamante ne buñ ne diwu mooy maire bi ñu naan mais kooku kan la dans un premier temps je crois que Zahra Iyane Thiam maire bu Sicap jël na benn longueur d'avance bu am solo ci maire yu bëri parce que opération bi xamante ne war nañ ko def pour xamale SICAP déjà turam dana positionner SICAP d'une manière boo xamante ne SICAP dana dem fu sori bon dëgg waa SICAP xam leen ne tey vous avez une opportunité extraordinaire de positionner votre commune si compétition des territoires parce que territoire yëpp six cent une territoire ñoom ñëpp dañoo nekk en compétition compétition boobu nag élément bu njëkk bi mooy ki leen yor kan la loolu na ko waa Sicap réglé bu baax a baax bu leen jox seen commune koo xamante ne bés bu toogee dana ax dana am problème pour attirer même des partenaires pour ko ñu ñëw jàppale seen dëkk Zara doo am problème boobu maa ngi lay encourager di la wax ne ñoo ngi sa gannaaw le président Macky Sall mi ngi sa gannaaw parce que xam na yaay kan Sénégal xam nañ aussi yaay kan beneen élément bu am solo mooy que ne Zahra Iyane engagement am si combat yi xamante ne Sénégal traversé na ko depuis plus de vingt ans kenn du ne fan la newoon loolu itam indicateur u engagement citoyen la indicateur militantisme assumé la indicateur u responsabilité la bon nag le futur maire de Sicap dafa bokk ci ñi xamante ne dañu def l'histoire politique et l'histoire de la citoyenneté de ce pays de notre pays le Sénégal maire boobu dëkk bu nekk bëggoon na ko am bon nag Sicap bu ngeen ko amee na ngeen ko jàpp na ngeen ko boot na ngeen ko roganti bon nag Zara yow nekkuloo n'importe quel candidat mais tu es une candidate boo xamante ne tu es une identité remarquable dans ce pays notre pays le Sénégal nous vous faisons confiance nous faisons confiance et je sais parce que vous êtes euh, tête de liste ici à Sicap Liberté et la tête de liste et son second vont m'accompagner à la ville en tant que conseillère là-bas. Bon, donc, man, je suis rassuré d'avoir comme collaboratrice Madame Zahra Iyane Thiam. loolu mooy le peuple de Dakar les Dakaroises et les war nañu corriger benn dysfonctionnement boo xamante ne dafa plombé Dakar Dakar dafa war a taxaw ñu defar ko dama war a wax sax ñu defaraat ko parce que dafa nekk malheureusement il faut le reconnaître si loxo yoo xamante ne seen préoccupation du defar ko pour que Dakar yi ak Dakar yi mën a am lu ñu jëriñoo ci seen ville parce que une ville dafa war a jëriñ population yi ville dafa war a taxaw ba population yi bu ñu taxawee ne ñun lal lañu ville bi waral bu ñu defee li leen li ñu waral ville bi ba pare mais malheureusement mille 2014 ba léegi ñun ñi toog fi ñëpp bu ñu déggee ville de Dakar rek mooy ville de Dakar mi ngi xëccoo état bi emprunt obligataire ville de Dakar mi ngi xëccoo Sandaga ville de Dakar mi ngi xeex ak marchand ambulant yi ville de Dakar mi ngi si ay xeex rek lañ leen di déggee mais une ville n'est pas faite pour un combat boo xamante ne c'est un combat d'opposition contre un pouvoir en place une ville dafa war a nekk dans une relation fournisseur client avec les populations ñun ay client wu ville bi lañ dañoo soxla ville bi pour que mu defar ñu ba ñu fayee suñuy impôt ba pare ba ñu defee suñu wareef ba pare bon dëkk loolu il faut que ñun ñu xam ko ñun dakaar bi ñu bëgg defar man Zahra Iyane Thiam ak ñeneen ñi ànd ak ñun mooy dakaar buy jël ay service di ko joxle les populations dakaroises Dakar boobu la ñu bëgg defar Dakar boo xamee dana am sécurité Dakar boo xamante ne dana am zéro sable zéro ensablement zéro encombrement zéro épave dans les rues avec des jardins dans les quartiers et ce Dakar là que nous voulons du ma continuer parce que engagement bi ñu war a def pour taxawal suñu programme pour jël engagement ci kanamu Dakar suñu meeting d'investiture bi xamante ne ñu ngi koy préparer buñ ko defee danañu wax engagement boobu jox ko waa Dakar suñu meeting d'investiture boobu yaakaar naa madame la ministre buñ ko defee gars yi dañ ne y'a pas photo nañu bàyyi parce que nag am na sama benn xarit bu naan man Ablaye benn ñaata ak sam ñaata wute na te loolu moo am bon nag maa ngi xaar bés boobu pour que ñu élaborer suñu programme jox leen ko ma terminer par me répéter la répétition est pédagogique dama bëgg waa SICAP loolu ngeen jàpp ko en tout man bu ñu ne ma woon si six cent une collectivité locale yi fi nekk kan nga bëgg a jël pour que boo tukkee dénk ko sa dëkk dama naa ko dénk saare yan bon dëkk bu ngeen amee loo xamante ne nit ñi dañ ko soxla te buñ ko soxla woon buñ ko amoon du ñu seet feneen bu leen effectivement gëmm bu leen nelaw am na ñu fi nekk di woowe seen bopp Benno Bokk Yaakaar fii mais xam leen ne original dafa wuuteeg copie original ak copie dafa wuute niiru niiru lu Benno Bokk Yaakaar taxul nga nekk benn Bokk Yaakaar bon nag ñooñu il faut les identifier docteur Malick Diop a ngi nii moom moo yore AFP si département de Dakar fii mu taxaw di ko taxawal di ko dëgëral foofu la AFP nekk ñi nga xamante ne dañuy mboboo AFP nekk feneen mën nañu wax leneen mais ñooñu duñu AFP AFP ngi nii taxaw may donc wax madame la ministre guddi na maa ngi dellu Yoff ñaareelu yoon defe naa mi ngi nii ma fay ñëw mais bu jaree ñett ñeent fukk ba ñaar fukk bu ah, ñëw maa ngi fii pour que ñu de manière remarquable SICAP et la ville de Dakar maa ngi leen di remercier bu